jërë ngeen jëf la xew ca conseil constitutionnel mi ngi ci xët mu njëkk l'observateur dépôt liste parrainage yi yéenekaay bi nañu lu mat fukki parti coalition de jot déposé gum waa Benno Bokk Yaakaar ak parti Rewmi ak waa Pastef ñoo ca jiitu démb it ci journal bi nañu ay buuxanteeg jàppanteeg yaaman ak maane la ki biccoog mbaaloo na ca conseil constitutionnel le témoigné di ñu leeral ak di ñu wax la andi woon buuxante yàq cooye ba parti politique bu ci nekk bëgg a njëkk déposé ñi jot a déposé seeni liste ci bésub démb bu njëkk bi le témoigné nañu toll nañu ci fukk ak ñaar ñaar waaye démbit fitna amoon na ca conseil constitutionnel réew mi quotidien nañu bu ñu ci waxul du jur jàmm yeggaguñu ci wote présidentielle yi 2019 fii te fitna ji mi ngi ne jasar ci géopolitique bi anki dina kay xëy di ñu xamalekk juróom-ñaari nit ñu tànn ngir ñu war a saytu opération contrôle liste parrainage yi journal bi nañu Moundiaye Cissé la Mazid Ndiaye Waljooja Ndiaye professeur Babacar Gueye Abbé Alphonse Seck Maymouna Dieng ak Rokhaya Gassama conseil constitutionnel moo leen tànn ngir ñu war a waggat ci wàllu parrainage yi ba lépp tege ca yoon yoonu yokkute boromam di Macky Sall saf na sàpp ci yéene kaay yi tey ubbil la Sénégal livre bi mu bind tuddee ko le Sénégal au cœur démb la doon def lancement ba waaye las ne nañu yàqu ko fenn ne ca ndajama tontu na fa ay bañam wax na fa boppam kañ fa giiram nee na moom Macky Sall ci yax bu rëy la bokk ci jàmbaar tigi la soqe ko jàmbaar yoo xam ne kenn musu leen a jam naa ni dee sax moo leen gënaloon di ñaw cib xare mu ne dafa dem ba gis ne ñu bari xamuñu ko moom Macky Sall xamuñu mooy kan xamuñu fan la xam xamuñu lan la dund moo tax mu bind livre bi di ci wax boppam vox populi nañu teg na loo xam ne doonu ko te seen wax jooje boo koy seet ba ci biir yàq ak iñaan rek a ko lal suur su anañu tam gi ko fi Abdoulaye Wade tamoon moo ki mbokkam moom Macky Sall la ciy dëgg Macky Sall leeral na ko ca livre ba noppi ñu ko doon tuumal mu tegaat leen ci seenub ànd suur su a teg ci sulliwaat gumbi mu di li Abdoulaye Wade waxoon Macky Sall 2015 ci la waxee woon waxam juree jooje moom Abdoulaye Wade ca la waxee woon ne ñoom Macky Sall ay jaam lañu ñi leen moom ñoo ngi ci réew mi ñoo ngi may dégg te xam nañu ne ñoom Macky Sall seeni jaam lañu anki dina kay nañu ca ndajem présentation livre ba woon démb Macky Sall leeral na fa ne musul mësuta attaqué Idrissa Seck benn yoon direct info nañu wax na fay ne dafa dem ba gis sax ne ay àndandoom dañu ko umpale moo waral mu bind livre bii di le Sénégal au cœur di ci wax boppam le Sénégal au cœur noonee la livre ba tudd le quotidien moom gis ci présidentiel au cœur yéenekaay bi nañu boo ko déggee muy wax moom Macky Sall day mel ne koo xam ne da koo biir ne wotey présidentiel yi 2019 da koy gagné ndax programme lépp léegi mi ngi ko lépp ci wàllu emploi la koy def wax na fayit gaayam yi ñu góorgóorlu ndax ndakaaru dañu ko war a gañe la tribune nañu Macky Sall mi ngi ci temps électoral jamonoy campagne électorale ci la nekk ndax lu bari mi ngi koy diggee ci réew mi diggee na ba diggee yeneeni réforme ci Sénégal bu ñu ko falaatee Birane Ndour fal nañu ko xibaar baa ngi ci xët mu njëkkul observateur ubbil journal bi groupe Futur Média am na njiit lu yees Birame Ndour ma ne woon directeur général adjoint bu GFM moom la ñu ñoqali léegi def ko directeur général groupe Futur Média l'observateur nañu pal ga am ci GFM yamul foofe journaliste bii di Souleymane moom la def directeur information chargé stratégique développement mu war a doxal nañu dox dem ci lambu ci ak sunu lambu Double bàyyi Triple Less di Balla Gaye 2 moom la xëy di waxtaanal li mu amee ci ñëgg-ñëggu a féewale ak doom doomam Balla Gaye 2 te bi Balla Gaye 2 ñibbisee ci tukkeem bi ba léegi moom dubales nee na gisu ko dégg ko lu jëm ci ba Balla gay 2 ak moo Modou Lo dubales na lëm ca yéene li mu ci bëgg te di ko ñaan moo di Balla Gaye 2 bu jàkkaarloog Modou Lo dóor ko mu kaw